la solution réew mi laay wax parce que mbay ci sa tànk balaa ngay wax solution ca Jérusalem nga wax solution ci Sénégal ba ndax tey li màkk di soxla ci gëneen Sénégal moo ko ko gën soxla ndax Sénégal ay gor ñoo fiy dund ay jullit yu baax ñoo fiy dund ñoo xam ni mënuñu xëy jaay seen ngor ñi ngi fi kon ñooñu soxla nañu solution solution moom nag moom Cheikh bi muy proposé xanaa ñu bari dañuy xaar euh, mu tuddal leen rek benn am naa ni waaw bu ngeen jógee rek ngeen wutal ma candidat nangam am baatin bi wane na ni solution la solution moom Cheikh dama gis ni ca ñaari ca ñaari candidat lumière la ko teg solution bi ci réew mi lay wax ci ñaari candidat lumière la ko teg bi ci jiitu mooy malaan bu jógee ca place de l'indépendance jeunes yi wër ko di jàng naasiril xaq bi la beneen ba ca topp mooy malaan bu nekk ca place de la nation jeunes yu wër ko duñu manifester waaye di jàng naasiril xaq bi la ñu di ko riiral ba yàlla wàcc yërmande mooy solution ñaari candidat yooyu la ñu ko ko jàngal fële ndax point stratégique la ak ñu ko ko jàngal fii waaye ku ko koy jàngal parce que ñu bari bu ñu fa demee beneen attitude lañuy ñuy adopté waaye nag li ñu yëgal ni réew mi dana mujj ci naataange lu ni réew mi dana mujj ci naataange mooy dañu xam ne ñaari candidat wam yooyu dañ leen voté te man ak yéen fay ànd ba foofu naa seen xam nga ñu bari am na benn dégg-dégg bu ñuy faral di am rek ndax mission bi sori ci ñoom waaw yërif àdduna nu mënee ne ma ni déedéet àdduna di wax waxam sori na nañu bàyyi suñu weewu tànk ba noppi bàyyi leen ba ma booteel ñaari candidat am yooyu ba noppi gis nga bu nu riiralee malaan foofu ca place de l'indépendance muy riir jeunes yi toog nu def ko ca place de la nation nu yëkkati yat bi ñëpp xool jaww jeeg leer bu ma waxati nit ci réew mi dàpp yitam na te yitam na lu yàggul ñaanal fekke ak tal ko parce que bis bu ñu yàlla dimbalee ba ñu def loolu